voilier bi jar na am na ku ko jënd si bile vente aux enchères lu tolloog téeméeri pièces ak juróom fukk la waa office national de recouvrement des avoirs criminels di ONRAC di jaay bokk na si ay téléphone portable ay oto yu bakkane ay deux am na sax navir ak yeneen ak yeneen mu di alal joo xam ne ni dañu ko jëlee si ay doomi aadama yu jote ak yoon. Euh, ay alal yoo xam ne dafa jóge ci procédure yi ñu leen jox wala ñoom ñu àtte ne kat lii dañ koy nangu parce que yoon moo wax dañ ko war a nangu dañ koy jox suñu kuréel gi muy ODRAC euh, bu buñ ko jotee ñu nit aussi euh, ñu xool ko euh, buñ ko amee ba pare ñu ñëw ne lii nañ dem jaay ko ci diggalu àttekat bi. njaay mi bokk na it si li ko sabab mooy fexe rek ba yenn bagages yi du yàqu si loxoy yoon benn pàcc si koppar gi di tukkee si bile njaay waa ONRAC si keesi nguuru Sénégal lañ ko fas yéene dugal. leneen li e, ñaareel bi mooy su fekkee ne dafa am koo xam ne dañ koo tooñ te yoon e, joxoon ko ndàmpaay su demee ba ci biir mu xam ne kat ki nga xam ne moom moo ko war a fay amul loolu yorul alal bu fekkee ne dañoo am lu jàppoon te ñu joxoon ñu ko ñu jaay ko moom mën nañ ñëw wax waa ONRAC na leen kat ci alal jooj laa bëggoon ñu defal ma ci ndàmpaay. bëri na ay doomi aadama yu teewee yëf yi bokk na ci ñoom ay brocanteur di ñoo xam ne dañuy jënd di jaayaat ci seen gis-gis nag njëkk yi dafa xaw cher lool. vente bi ni ñu ko gisee baax na mais prix yi dañu xaw a cher un peu parce que par rapport li ñuy jënd pour jaayaat prix yi ñuy déclaré boo ko jëndee fay TVA yi doo ci génn quoi. waaye nag am na ñu si gis bu baax seen bopp. waaw jariñ lañ si gis <laughs> ñu ngi xaar parce que comme jeexagul dañuy xaar yeneen kii ñu xool ba xam. bi mooy ñetteel bi yoon office national de recouvrement des avoirs criminels di amal bi la vente aux enchères